عين رحمتي الحمد لله جزيل نعمتي لا إله إلا لا خروجي ما هي عين رحمتي bu réy la boo xam ne jiitu waaw amul benn liggéey jiitu ab bu ko tuyaaba amul benn rahmaani rahim barke borom Tuuba bokk jullit yi bokk taalibe yi ngi toog fii ci kanam Serigne Mbacke moom sëñ Abdourahmane moom maam Thierno borom Daaru Muxti muy jotaay bu am solo bu ngeen gisee teewaay bi nu fi toog am lenn lu ñuy bëgg a waxtaane ci ab liggéey boo xam ne dañ koy liggéey mu jëm si fii mu nekk te muy barab bii nga xam ne Sëñ man dañ ko fee dëgëral mu doon fi liggéeyal sëñ Tuubaa bi mu bàyyi fi sëñ Moodu bi sëñ demee bàyyi fi sëñ Mbàkke mii sëriñ mii am taxawaay yu rëy yu muy taxaw ci lépp ci liggéey sëñ Tuubaa yi bi fi sëñ Saliou nekkee Baaraak seen Sidi Muxtaar ba ci seen Muntaxa mi yàlla na fi yalla yagal te weral ko taxawayam don taxaw yeen rek la moy taxawaay moy le borom daaru taxawoon ci kanam seigne touba rek nekkon leppam yëngoom ak dalam ak lepp mu joxon ko seigne touba kon xamna ne ngir baña gudal wax ji dañuy jox seigne bi mu am kaddu yu yu mu wax su ko te buñu ñu nak ñu do ko leral ko bëgg assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk julli di mbokki taalibe ngi leen di nuyu. sëriñ turu sëriñ Tuubaa sëriñ Muntaxa xalifatul aam li taifatul muridiya atalallah umra wa abqa baqaa ak ci turu sëriñ Abbas mi nga xam ne moo fi nekkal borom darul muxti di leen nuyu di leen sant di leen gërëm nuyoo bi ak cant yi itam lépp nu delloo ko sëriñ bi sëriñ Touba ndax sëriñ Cheikh Aliou mi nga xam ne moom moo fi taxawal sëriñ bi ci wàllu ndox mi mu tàmbale woon ko ci jamonoy sëriñ Saalix moo waral jataay bii tey ñii mu fi yabal ak yaataamam ak baaxam laay lépp mënoon na ko wax waxaale ko ci sama tur ndax lépp ci moom lu sabu boo Ah, def di nag bëggug yaatal rek moo tax mu def lii loola moo de dafa am forage boo xam ne dañoo bëgg a teg xeer bi fii ci darul mën naan ci dibeer ji ñëw incha allah buñ jullee takkusaan ba noppi fii ci dend ak tel bi jàkkaaroog arrondissement loola moom la ñuy yëgle di ko yëgal waa dëkk bi ñëpp ñëw teew te ñaan yàlla dogal na ni ñu ko euh, teewee ci tàmbali yàlla may noonu nu àggalee ko noonu ba tasewaat bi ci ubbi ko ci njiital sëñ Cheikh Aliou mi nga xam ne moo fi indi forage bi ci ndigalu sëñ Mountakha mi nga xam ne moom lay liggéeyal ndax moom Serigne Touba lay liggéeyal te Serigne Touba sëñ Mountakha moo ko fi nekkal kon loolu moo waral jotaay bii tey li ci damay wax jox sëñ Mountakha si mii leeral ko li man ci doon wax daal mooy. képp ku dëkk Daaru manaam noo ngi la ko yëgal bëgg buñ jullee takkusaan dimaas ñu teew fii ñuy tege xeer wi ndegawut sëñ Abdourahmane nag ñoo koy taxawee ndax da cee boole ne forage bi da ko tudde sëñ Abdourahmane da jox tur wi kon nag képp ku ko dégg lii mooy woote bi moo waral jataay bi noo ngi ñaan yàlla mu mayaat nu nu teewaat fi di ko ubbi lépp ci wér ci tal ci kattam barke Sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëñ Mourtala kon nga gën koo leeral li ci des. waaw jërëjëf sëriñ bi xam ngeen ne sëriñ bi li mu wax rek doy na sëkk ndax ni ko waxee rek barab bii barabu sëñ Tuubaa ndax su maam Cerno la ko joxoon te maam Cerno mooy sëñ Tuubaa. du ñaari jëm jën a jëm rek lañ lépp sëñ Tuubaa kon suñ jëlee ab forage di ko indi fii. Serigne Cheikh mi nga xam ne liggéeyakanu sëñ Tuubaa la moom it ndax li muy def mooy waxtu ne liggéey bii ko sëñ bi bàyyee woon muy sëñ Saliou mu ak si sëñ Alaaji Baara ba sëñ Sidi Muxtaar ba mu ñëw sëñ Muntaxaa mii mi nga xam ne nee na ko yow yaa war a yor kenn mënu ko yor lépp gi ci sa loxo loola waral waxtu ne muy wut ñoom ko àndal liggéey bi yàlla dogal nag moo am ay bokki taalibe yoo xam ne yaakaar nañ ko ci liggéey bi muy liggéey sëñ Tuubaa ngir xam ne lépp lu ñëw ci loxoom dana jàll sëñ Tuubaa ñu jox ko ab moom la bëgg a gas fii ci Daaru Marnaan ci ndigalul sëñ Muntaxa waaye nag ci kilifteefu sëriñ Mbàkke mii nga xam ne moo nekk ci bopp kër sëñ Abdourahmane gi kon sëñ Mbàkke mii ci turoom la ñuy wax rek di wax ne mi ngi woote ci turu mboolem njabootu borom daaru gi bayu ci fenn nag bayu ci benn buntu kër buntu kër yëpp lay woo ngir xam ne teraangay sëñ Tuubaa la joo xam ne dafa ñëw kër borom daaru rek kon nag bëgg na képp koo xam ne yaakaar nga borom daaru tuddee ci biir dëkk bi wala ko jege ñaan na la bu fekk si tegum xeer moowu nga xam ne ñoo ngi koy teg ngir liggéeyal ci sëñ Tuubaa ci borom daaru ndax ndox mi kat bu ñëwee ñun ñëpp lay jariñ kon nag bàyyiwut benn taalibe bàyyiwut benn kër waaye nuy soññaan nag taalibe yi nga xam ne taalibe sëñ Tuubaa la ak njaboot sëñ Tuubaa gi ci biir dëkk bi xam ne liggéey bi fépp fu ñu ko yóbbu sëñ Tuubaa lañ ko fa yóbbul te sëñ Tuubaa kenn rek la ñun ñëpp noo ko bokk kon kër fu ñu fa yóbbu di ko fa def rek xam ne Tuubaa gépp lañ ko defal kon nag sëñ Seex nee na mi ngi woo ñëpp

waxtaan te yaatu ba yéen a jëm ci am ngir lëggeel sëñ Tuubaa mu daj daaru mën naan dugg ci biir dëkk bi ba ndox dootu ñàkk ci Tuubaa te yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla dogal kon sëñ bi ñoo ngi sant bu baax di ñaanal bokk yëpp nu fekk ko ci jàmm fekk bis def ko ni ñu ko bëggee te am ci ngërëmu sëñ Tuubaa amuñu ci lenn lenn lenn lu dul cant cant gu a eh, sa bopp ak ñi ko àndal ñëpp ak sant cant ngërëm dong mu leen fi nekkal ak am am am pas-pas yi gën a gën a ak dogu gi eh, ak ak gën ko ànd ak yéen lépp eh, lépp del yeesal nañ ko peq te eh, li ko dalee ci Cheikh lu ñu defoon yàllante kon lu ñu fi bàyyi woon lépp mel na sa taxawaay taxawaay yëpp mel na sa taxawaay waaye lu ñu def. dama dama dama koy yeesal ànd ci biir waaw waaw dama koy yeesal ba noppi ànd ci biir rawatina ci nag yow ndax yow eh, loolu si taxawaay bi ci pàggu te fi sëñ Tuubaa la bokk ndax sëñ bi lu mat fag fàggu fàggu na ko te tey ñii nga bokkal sëñ Tuubaa amul kenn ko xam ne nii ko yore mën na ko yore mën na ko yore eh, dëgg la am na am na waaye lii moom. ci pàggatu Sëñ Tuubaa rek la bokk waaw ni nga ko ni nga war a liggéeyal Sëñ Tuubaa ci wàll yëpp lii moom ak jagle la léegi pàggatu Sëñ Tuubaa rek la moo tax mu mu agsi ci kon nag li ma ci xam mooy dëgg la neexul metti na dis na waaye nag ginnaaw liggéey bi sëñ Tuubaa la gën a la fedd laxasaay gi rek dolli li nga fa nga taxawoon rek na nga gën a dëgëraat say tànk bu baax a baax incha allah dama duma dañ mukk ci ànd ak yow man feeg maa ngi nooyi ak na nga xam na nga ñu ngi la gën a dénkaat waaw tànk yooyu ci taxawoon rek boobu ngën ndax man euh, dëgg la li ma fàggu si sëñ Tuubaa rek la euh, taxawaay bi euh, xam na sëñ Saliou moo jiitu de waaye waaye waaye ci la ma fekk yaakaar ji nga xam ne moo moo am ba sax sëñ Saliou jox la ko eh, loolu moom dëgg la sëñ moo mooy mooy sama jiit kilifa ci lépp waaye nag noo ko noo noo ko bokk noo noo ci ànd noo noo ci basa ah, déggoo naka jekk am na lu doon waxtaane eh, waaye la ma ko ci doon dama ko ne eh, man de lu mu ci mën doon fii nga ca foo ca toll rek fa fekk fekk na fu ma toll ca loolu foofu loolu laa ko ci tontu kon nag lii. mooy noonu rek la demee. moom mooy mooy sunu lépp. ji jiitu ma ci joxe ci ndigal waaye lu mu ci def fekk na ma man ne sama fekk na fekk fekk na fa sama sama sama pexe xam ne moom moo jub moom mooy pexe mu gën a jub muy ndigal lu lu lu loo xam ne itam ndigal lu ndigal lu rëy la ndax liggéey Sëñ Tuubaa bu rëy la waaw loolu moom moom sëñ bi dañ dañ ci dañ dañ ci dañ ko bokk. dañ ko bokk waaw kon loolu nag bu doxee ba agsi fii da eh, nga xam ne doyal googee eh, xëy na waxuma ko mosuma ko wax waaye loolu mooy mooy yàlla ma ci seere waaw doyal googu jekk jëkk nga doy ma ci taxawaay bi waaw kon nag booy woo nga ñemee bu baax a baax liggéey bu réy la xam ne amul benn liggéey bu ko jiitu waaw benn liggéey bu ko bu ko jiitu ëpp ko tuyaaba amul benn waaw kon kon kon kon kon noonu dañuy ñaan rek suñu boobu tëbb la lépp tëbb la wér tëbb la kàttan tëbb leen xel tëbb leen xol jikko bu ko mu gën a mën a dékku lépp yàlla mooy def mooy lu lu lu mu su ko soo def ko kon nag loolu loolu lépp noonu la koy ñaanal ngeen ko ànd ak mbokk yu baax yii nga xam ne moom ñëpp am nañ cee ci man doy ma sëkk ñi nga xam ne ñoom laa ci xam ni nañ ma sëkk te am naa ci ñoom yaakaar ma sëkk waaw kon loolu loolu rek dëgg kon nag ñëpp xam ne eh, ndigal la nga xam amoon dama dama dama koy dolli waaye du ma ko wàññi waaw.